xamante ne kenn dootu présenté ci mim réew waaye itam nga doon koo xamante ne tarkaal ñun dag ñuy bégal nga doon royuwaay tey jii sa doom nekk ci li nga xamante ne mooy la musique sénégalaise muy waajal événement bu mag le 29 tey ban yëg nga am ci tar ba ah, yëg-yëg ma ci am mooy maanaam euh, euh, kontaan rek ndax euh, boo amee doom mu nekk ci maanaam di yëngu ci mbir Euh, nga xam ni danga koy da koy da koy jàppale ci loolu mu yëngu ndax moom xam ne man yonent bi rek laa bëgg sallallahu alayhi wa ba mu duggee ci mbir mi la la créé benn woy xam nga war nga koy woy woy ko yonent bi ni papa dama bëgg ñu duyoo ci loolu rek loolu rek loolu rek ma ne ko li mooy sa ubbeeku mooy sa bunt mu def ko kon bu duggee ci dara dama ko ci ñaanal moom ci réussite total nag waaw laa koy ñaanal. macha allah wax nga ko léegi mu def clip boo xamante ne nee naa ko ñëpp ñëpp ñëpp ko apprécier tey jii lan lañ mën xaar ci yow mi nga xamante yaay woy juróom au grand théâtre man na xam damay toog di ñaan rek ndax euh, moom mënuma mënuma mënuma mënuma mënuma mënuma mënuma ko gis nii ndax dafa doy soli ci man waaw day tooy trop même ma koy télévision sax damay xam nga dooma woy juróom rek kon jàkkaarloo moom nii day day day day daf may jafe loolu daal waaw. est ce que nga ne ñëpp ngi lay xaar sur scène le 29 est ce que di nga yéeg. waaw non déggoo man la mënu ma ko mënu ma jàkkaarloo moom di ko xool nii man daal dama koy ñaanal rek dama jël sama course rek di ko ñaanal mu am ci réussite totale te yàlla mën na koo def ndax eh, am na ngërëmal juram moom sama doom la sama xarit la nii sama doom yëpp samay xarit la ñu. magam Chamsidine Mbaye moo ko ci moom la nekkoon ba mu defal ko ba mu ba mu mën a woy yi fa tàmbalee ci moom ak ñoom Pape Vieux Modou Mbaye ak ñoom sëñ Modou Kara ak ñoom Mbacke xam nga sama doom yëpp a baax daal ñoom Ibrahima Mbaye Fassé ki ma tudde sama yaay Fatou Mbaye xam nga sama doom yëpp a bëggante baax kon moom war naa mën a mel nii te ni ni nii ni ni ni mu baax noonu la bëggee frère am te man ñu bëggante rek mooy sama intérêt te ñoom dañoo bëggante seen biir wax dëgg yàlla bi Ely amee dom sama doom yi nekk Europe yëpp dañ ko statut ñooñu dañ ko jàppale kon maa ñaan yàlla mu am ndam ci li muy def waaw loolu laa koy ñaan yàlla. macha allah duñ fi ñëw ba dem te duñ la laaj sa diggante ki nga xamante ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba bi muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ndaxte bu ñu nee Cheikh Ahmadou Kara ne Mustafa Mbaye ñu gis ne saa su ne fu mu génn da ngay nekk ci kawam lan nga ñu mën wax ci Cheikh Ahmadou Kara. moom kay sëñ bi moom day kenn ci man ndax xam nga koo dem ba tuddee ko sa doom kooku sor na ci man trop te dama koy sant moom Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni ndax defal na ma teraanga mu nekk teraanga mooy ki la jëkk woon yonent bi moo ko moo tax bi ma yóbbu Mbacké dafa bari mbaa maa la ko wax moo tax Mbacké dafa bari di ñaan yàlla rek Mbacké mu gudd fan yàgg fi lool bu mission bi mu bëgg a mu terminé ko moom sama sama sama la sama lépp la di ñaan yàlla yàlla na yegg yàlla na yeggale mbiram yëpp ak doole nurin waaw itam li nga xamante ne mooy wax nga ko sànq nee naa ko kenn ku ne Moustapha Mbaye xel yi dem ci ki nga xamante ne mooy Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam boo ko yuuxoo ñëpp daanu tant boo ko yuuxoo ñëpp jooy lan mooy waral loolu waaw loolu nag moom yëg-yëg la rek xam nga yonent salaa salaam moom boo ko dee tagg euh, mm, mm, na doon dëgg ci yow rek bare teraanga ngi yem ci ku la seen xelam dem ci yonent bi mhm. loolu man xaw ma lan la daal moom bi mu woyee woy wii ma ni waa xaadim nu mu def ba woy woy wii ak li mu ko woy woyu ma dara de man papa daal kaay damaa woy yonent bi bëgg nga ànd koog yow moom moom sama biir xol la ma la ma jam xalaatu moom ni moom mën na mën na génne version mel nii ah ma woyandoo koog moom mais way bi ñu ko enregistré studio rek pour pour pour ñu àggal way rek problème la ndax dama ci jëlee àll kon loolu mbégal boobu ma bégal rek nga yonent bi rek mën na ko yóbbu fu sori waaw waaw. ngeen yore télé yu bari rek yàlla na yu bari ci yéen lool lool lool lool lool ba fu ngeen nekk rek ñu fekk leen fa. maa ngi gërëm ñu fi toog ñëpp euh, di gërëm suñu mbokk internet aussi ñu tibb Euh, di nuyu suma xarit Bour Fall mi nga xam ne suñu miinantal ci moom la jógee comme ni ma koy waxee rek dina nit ku baax euh, di waajal bés bi incha allah rabbi di vingt 29 samedi bii di ñëw jour ji mooy deux di la si ñaanal yàlla mu am réussite totale tarba comme je te l'avais la àdduna looy def te gëmoo ko rek bu yeboo ba ko man xam naa la depuis très ngay way piano piano yof ak sa mag donc nga dem sol ben yere genre Baye Fall ak jean non nga dem solo bo ñoy nek ci ginnaw di way lu neex parce que man dama bëgg musique man dama koy enjoy ma baye la xel ne kii am talent bu nek ci mom bo xam ne ku ko jàppale je pense que ëllëg mëna dem ma ñëw fekk le fi encore ngay ànd ak sama xarit man ben xarit la am ci aduna muy Buur Fall donc euh, di sama xarit euh, en même temps di charge de mission à la DGPU yi nga xam ministre Diène Farba Sarr namé na ko ko Euh, barki démb euh, donc euh, gën ñoo boole ma am ma gis yow ay qualité ay qualité yoo xam ne ku ko am ma dama lay naw dama lay ñemee parce que damay wax faral yi wax ne sang sang mooy yàlla may la lépp yàlla may la tur yàlla may la as weccit yàlla may lépp nga jël yëpp na ko yàlla jërëjëf waaye man man jaam kese laa man yàlla sa jaam yi rek laa fonk noonu nga def xam nga nit da ngay ab base ñun politique bu ñu def boo amul base bu yóbboo dem nelaw yow mii da nga am base Grand Dakar euh, ñaari tali benn tali fii rek mën na feesal Grand Théâtre waxuma la dama nen naa sànq sama vidéo ne xajutoo fii Tarba Mbaye bu Sénégal la mais Tarba bu bu bu international nga mm. et donc maa ngi lay ñaanal yàlla sa bés bi yàlla nga si dem ak si bisimilah rahmaani rahim mm. te génn ci alhamdulilah rabbil alamin man waxuma kenn kenn kenn tan naa tàndalu na di nga feesal Grand Théâtre sànq journaliste mu ngi koy wax lu ñu wax mooy assuré. te ñëpp xam nañ ne di nga parce que li nga wax rek euh, grand théâtre je pense que terrain d'entraînement la si yow ma loolu lay wax parce que seetaan naa la bu way la tu as une voix d'or bu fit la am nga fit mën nga jàg mbooloo mën a gis nga ko dem nga barki démb bitim réew le voyage est une école yaa ngi wax sànq le voyage est une école ku tukki di nga xam di nga gis di nga dégg et donc am nga expérience boo xam ne indi nga ko bu may oo ñëpp

ba nga saf Sénégal yëpp saf doomu aadama yëpp parce que loolu tamit mooy mbir mi artiste da ngay saf ñëpp loolu yal na yàlla may yàlla xar xar dënn doomu aadama yëpp dugal la ci ba loo def mu saf nit ñi aussi euh, nii nga continuer nii ni nga nekkee nii li ma lay conseillé mooy Tarba continuer ko boo continuer di nga am lu rëy ci àdduna parce que mag ñaa ngi di la ñaanal xale yaa ngi fi di la bëgg bof ñëpp a ngi fi di la di la di la sopp et donc continuer comme ça yàlla dina la jàppale donc maa ngi gërëm ñëpp xam te ndey ja liggéey lu mu am jomb ko sa daa liggéey sa kër baay ba boo naree daanu sa liggéeyu ndey mu lay tee ba doo daanu judd bu rey ndéeg baay waaye fu lak fay da borom sa may la ñax la sa baay may la ñax looloo liggéey ko moom Ousmane Nawel Pële lay sa ndey ju a noppal doomam bu sa yaay baaxi sa bàyyi baax dum du mën a bon xale nga waaye am nga jom li nii toppi dumu garmi yaa ngi ci yow muñ mu metti ndeysaan yow de doo jël ndaare Ousmane mi jom ba ma way la jël waare waaw waaw doomi kilifa ak yaaram buñ ko dee dékk ñaari loxo makaamay baay baa ko waral waaye makaama ba muy jite mbolo, moo koy sàkkul boppam ndey gilem baay gëléem bu doom juddoo sëf lay baaxoo jiitu nga leen sànni karawaas wi daan nga jël buñ ndam ya gore